li defal sa bopp rek nga defal référendum teg sa loi bëgg nangu suñu droit joxoon ndaw ñi ay emploi payer ce diplôme en bois ci sa poche ay milliards dañu woo Ahmed Aïdara président Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara xam nga fàtte woon suñu quatre cent mille fàttewuñu suñuy quatre cent mille rakk ji rakk ji am na dina ko déjati déjati ko xoj ko xoj ko mu yàbbi suñuy quatre cent mille waaw asalaamualeykum la jeunesse maa ngi leen di nuyu waa Sénégal maa ngi leen di nuyu waa centenaire maa ngi leen di nuyu di leen siyaari bu wér waaw tey nag yaakaar naa li ñu fi dajalee di waa Y'en ak waa FRAPP France dégage ci biti man moom France dégage bi dama cee teg ci biti parce que dégage rek dayul ñoom Guy Marius Sagna buñ dégagé français itam Macky indiwaat leen lu ñuy wax nag ci wàllum injustice beeg ak libérons la justice gis nga justice bi ngeen gis nii magistrat yeeg avocat yeeg procureur yeeg patiti patata ñoom ñoo war a góorgóorlu libérer seen bopp ñoom ñoo yeew seen bopp Macky yeewu leen ñoom ñoo yeew seen bopp parce que li tax ma wax leen ma ne leen ñoo yeew seen bopp fii dafa am ñetti pouvoir le pouvoir exécutif mooy palais ba Macky ak waa këram le pouvoir législatif Moustapha Niass ak waa këram am nañ indépendance waaw lu leen ko teree jël ñoom les magistrats les magistrats lan moo leen teree jël seen indépendance. dañ leen musul wooteel. dégg ñu naan. Eh, la presse n'est pas indépendante. la justice n'est pas indépendante. loolu ci jëfay liggéey ci les sacteur la des mais jox nañ leen seen indépendance ne leen jël leen. yéen ñiy taxaw fii yor caméra yëpp ak journaliste da ngeen indépendant. soo leen nekkee ak patron boo xam ne nag da leen bëgg a noot toog seen kaw ngeen bañ loolu mooy dëgg man Sénégal yëpp xam nañ sama patron day politique yor coalition man maa nga yeewee askan wi yeewee askan wi laa bokk may wax tey ci turu la coalition la grande coalition yeewee askan wi foofu laa bokk te ku ma ba bi may jël conseil xam ne man kenn du ne ma jaaral nii wala ne man Macky du fi def troisième mandat suul gaz du ko teree xëy parce que rakk ji sàcc la te rakk ji bu nekkee sàcc ki koy jàppale mag ja sàcc la resel resel resel mooy nit ki sàcc ba pare indil la ko nga jël denc wala nga jël jaayaat wala nga jël jëfandikoo Macky Sall ñun coalition Yewwi Askan Wi dañoo am suñu mandataire mooy Jibril Ngom mu sàcc suñuy kayit daw dem ànd ak waa APR gars le président n'est au courant parce que lii gëmuñ ne Macky bu ko yéegee xam naa responsable Matam yi xëy benn bis sàcc ba ak Macky toog daal di taabale naan seen yu tàng ak yu sedd enveloppe bi tege ci wet gi waa ji layam layamal ni ko Damboj di waxee naan waaw non bi may dugg pré président la ma sama benn responsable joxoon loolu ma téye ko kan mooy dugg biir président de la république yor ab enveloppe bu punkal mu toll noonu xamoo fetelañ ca xamoo yatta ca ne xamoo tookee ca ne Macky Sall ci boppam moo amul kaaraange Macky amul sécurité yéen seen président amul sécurité Macky Sall xool kooku mu leer ko ne kooku sàcc la Macky Sall Macky Sall xool Djibril mu leer ko ne sàcc la Macky Sall ne ko xam naa ne sàcc nga mais kontaan naa ci yow Macky Sall xool Djibril Ngom ne ko xam naa ne escroc nga mais big naa Macky Sall xool Djibril Ngom xam ne kii trian la mu ne ko kontaan maki Macky Sall xam xool Djibril Ngom ba mu ne ko ci toogaay bi xam ne tojamaan la ne ko kontaan na Macky Sall xam ne mbon yëpp dafa dajaloo ci Djibril Ngom mu ne ko kontaan waaye kooku Djibril Ngom a ko tane ñii nekk fii nag di wax naan journalistes yi tëddee njaaxaanaay dans les plus grandes démocraties comme entre les républicains et les démocrates journalistes yi dañuy nekk far fii ñii far fii mais ay Souleymane Jules yaa xam may doyen euh, Abdou Latif Coulibaly mais ñooñu dañoo jël position moo tax duma leen mere man bokkuma ci ñi leen mere nee nañ Macky lañ àndal mais journalistes yi jël position wax ne ànduñoo Macky bu leen nëbatu man ci laa bokk. Macky Sall deux mille vingt quatre bii jarul ñu koy def débat ragal la naa dem naa dem naa dem dem a dem naa dem naa dem naa dem foo fekk nit ku naan foo la fekk nit ku naan non man géré la je suis issu d'une famille boo xam ne ay guerrier man duma dellu ginnaaw man géré la foo fekk koy wax loolu tàppe la ragala xew nekkul sax ci bu leen ko xoromal parce que day dem ci nii ak ci nee ragal nag mënumaa ñëw ñu jiitu wax ci dafa am ay état yoo xam ne dañoo porter plainte six états porter plainte ay responsable yoo xam ne ay autorité lañ leen mu a tuddee ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz aliou pétrole gaz ñooñu nga xam ne dañu leen a porter plainte moom daf cee moom dootul dem Amérique yow na nga yor sa rakk mu nekk sàcc nekk ci dëkk bii ñuy lancer appel à tout les Guédiawaye waa ba du ñas suñu quatre cent mille Aliou Sall nekk sàcc boo xam ne te ñoom gaaw nañ ci porte plainte mais juróomi at a ngi nii ma topp Aliou Sall naan ko sàcc nga du ma porte plainte jaay na suñu mairie ba sàcc la magam di ko si encouragé sàcc la te ñoom ku wax ñu yóbbu la police wala gendarmerie Guy Marius Sagna xam na ci dara affectation Guy Marius Sagna bi nag li ma ci bëgg a wax mooy Abdoulaye Diouf Sarr li tax ñu jox ko ndakaaru ne ko kaay nekk tëdd liste moom xamul fi mu jëm nag bu jëm seeraas la day dee parce que Barthélemy Dias fii la koy rey fii te te moom xam na ni c'est le journaliste qui moom xam na doon ñu jox ko Dakar du gagné dara te bu élection yi jeexee moom fa muy mujjee xam na ko wàllum premier ministre bi jaroon ñu ci jaar Macky moo ne woon affaire yi dafa yéex xaaral ma gaawal ko pour mu gaaw fast track mujj na def fast toog Guy Marius Sagna mii nag lu ñi ñi euh, affectation bii su ma doon moom fenn laa dul dem parce que Guy Marius juróom-ñaari at a ngi nii ñu koy buntu xatal di ko yóbbu frigo te mi ngi lekk mi ngi naan nit da ngay gëm yàlla ñun nag ci loolu lañuy yëgu yëngu panneau publicitaire yi Macky Sall daaneel dara taxul mu daaneel bañ na gars yi def seeni photo feeñ gars yi xam leen dóor leen ci élection yi benn ñaar Macky Sall lépp lépp lépp lépp lépp tubaab bi la yow booy daaneel daan daaneelal daaneel bu silvisé gars yi jëlaat seeni panneau sax defar toog xaar mais nga jël say quatre pilaar bombarder leen daaneel leen yàq leen pour dara dootu ci baax passez bu que ça c'est normal Macky sal waxtu wi dafa jot ñu wax ak moom ba tax na nag ma ne leen Macky Sall ak lu mu ñàngal ñàngal ñàngal ñàngal ñàngal ñàngal ñàngal ñàngal troisième mandat dañ ko te suul gaz du ko tere xeeñ allahumma salli ala sayyidina président Ahmed ñu woo sunu frère sunu camarade Abdou Karim Gueye kurum xaq borom baluy mbindaare